Mais Maître Siré Keledor, euh, si euh, lit euh, attiré na dembo aussi sama attention par rapport euh, décision bi nga xamné ne mën nañu wax né kase ko kase neen ko renvoyé ko fofu li euh, si tribunal de grande instance pour Dakar bi mais mu ngi xamné né carrément que loolu état bi fay nekk di def diversion parce que duñu am temps euh, dem li nga xamné fi ak le 10 décembre nga xamné ne mën nañu wax né date parrainage jeex na dem jël li nga xam ne mooy seen seen fichier ji jii paasan ñi nga xamné mo moo nekk ñiy wax Ousmane Sonko wala sax ñi gëm li nga xamné mo nekk projet bi nga xamné euh, Ousmane Sonko taxawoon nako est-ce tay jotul euh, ñu dem def pare de parrainer sen yenen nit yi nga xamné mën nañ wax ne fësal neen plan B bi pas asal est-ce que c'est pas le moment plan B bi. Euh, Ndiap man xam nga bokkuma Pastef même bou dee regard j'ai mes deux bracelets en guise de soutien contre ah, l'injustice waaye c'est la c'est xam nga lan la. mais Ndiap sénégalais buma déggal da nga wara tak bracelet bi bou dé d'accord lo ci li xew. Ah, ah, injustice la xam nga man tay wuy ma wuy ma duma ma digle kuy sànni xeer du ma digle kuy taal sànniwu ma so toju ma la la laalewu ma wuy ma. Mm. way sañ na ma tak li xullil. Mm. pour wax né d' ma ci injustice bi am ci réew mi. Mm-hmm. ñu tekk nit tek ay nit. loolu la ma wax ma xalaata bop la xana dëgg la xana nit boo adore sañ na yoxu wa c'est ma façon de crier de dire que j'ai mal. que man man mi doon taxaw di défendre président Macky Sall contre le président Abdoulaye Wade tay j'ai honte. ma dag may albert non tay dama rousse j'ai honte au-delà du mal que je ressens me rousse. Mhm. dama am déception totale du président Macky Sall Total j'ai le droit de le crier haut et fort je suis déçu Comme on nez, comme on nez dama am la ma metti parce que damaa taxaw 2008 ba loi Sada contre le président Macky Sall. Mhm. Dieye madame Cissé je nga cappale ba dina xam li may wax dama ka daan Je mu metti ma ak ñeneen ak

ni rek lay démé motax Sénégal jamono bi nak APR mom waxatuma ko jeex na fini. Hmm. inshallah allah xam lan lay wax ñi wara ñew nañu xol ñana. Hmm. ya nga manan plan B passif man bokuma passif ñom am nañu seen plan la jotta deg a dégg ca mbedd ma mu la riir xawma la mu doon. lan <laughs> man yaa may tital sax. léegi yow deg gis nga xam lu gëna xam ma ndiap ndiap wuy ma wuy hmm. su man Ousmane Sonko gën a sedd de. Hmm. nañu bàyyi ko mi mu bokk ci jàmm ak salaam. bu yàlla ki tuddee day gañe mu gañ. wuy ma yow mën ngaa daw A bee gën a ge gën a tar ci yow de wuy ma. wuy ma euh, dama ne euh. mën ngaa daw A bee gën a tar ci yow nga daw bee Z gën a tar moo tax. Paasan ji nga xoolal ARC fondation nee na nga bàyyi di may yuuxu il a raison bàyyi di may yuuxu danga may kii danga may déstabiliser te man dama bëri kersa. njaab bi tey. maa la wax leen lu compliqué wul li ma dégg mu la riir kilifa bi président ñu laa nuyu ba baax. waa léegi ci loolu yuuxu yi ngay yuuxu di may menacé di may déstabiliser. bàyyi laxaat turandoo sanu maam bàyyi laxaat borom kàllaama nga xam ne dafa ne réew mi kaka na la taal dana la doy bu bëgg tubéy. kii nii la dëkkee man. daf may daf may déstabiliser ma la ma dégg mu la riir di ñëw. la ma dégg mu la riir di ñëw laa wax wuy ma eh. man de buma don wa aper xam lu may def xulil laaj ma lu ma def. waaw. bàyyi mu sedd rafetal baña ñaaw ci xare bi. le yo plan B bi dang ci xam lu ma ci. xaw ma ci dara. lu ma ci xam waaye damay dox ci mbedd mi di dégg rek. waaye li ma dégg li maa dégg. dallu sa xel. wuy ma man de defoon naa ne Ousmane Sonko moo mooy ki gën a tàng ndeke yoo. am na ku gën a féroce. laa ilaha illallah Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mom dal yalla na yalla fal ki gën ci bopp réew mi lolu am solo wuy ma rew mom kenn du ko taal kaka na taal rek ka fay am bu fi kenn def dara nit ñi ñep and ak dal xulil wuy ma wuy ma xana xamoo leg leg combat nit gaddu ko fokk ni mok nit ñi la fekk du mok nit ñi wuy ma xam nga mo kana ma mm-hmm. la wax ak aw leg leg combat nga jàkkaarloo ngay tekk ñap di tekk fekk du yàgg tekk xam nga yakal la sunu borom <laughs> yow amna rew fumuy toll fo xam du yow yaa du yaa yaa yaa du rew ma wuy ma ñep dañ nan jàll di la xool ne tek nak wuy ma yalla nak di déroulé am luy dox di di ñew ci yow. te do xam lu mu doon. deug la yalla dafa ay japp rew kenn du len tekk c'est vrai Pa Assane ñu lire euh, ce, sa communauté bi avant ñuy terminer.